Bienvenue sur Salam Vision. salaamaaleykum tey ñu ngi waat fi nga xamante ni mooy Pikine bu ñu nee Pikine nekk Géejawaay daanaka ci digg bi la nekk tey ki ñu seet si tey mooy Pape Niang mi nga xamante ni moo nekk Pape Niang Bijoutier tey ji euh, mu nekk jàmbaat yoo xam ne jàmbaat ju gëm boppam la nekk ci dóorwaat boo xamante ni maanaam di defar ay bijoutier ay jaaro ay chaîne am na loo xam ne nag du ma ci yàggal dama koy bàyyi moom mu nuyoo balaa boobu noonu nag damay nuyu ñi nga xamante ni yéen a ñuy seraan à chaque fois di ñu suivre noonu la tamit affaire yi tamit waaw nekk leen ci rek dina gën a baax mais balaa boobu nag dañ lay bàyyi nga nuyoo Mhm, waaw bon ñu ngi lay sant di la gërëm sama nuyoo nag li ma koy commencé mooy euh, rabbix sadri wa yassir amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli euh, maa ngi ñaan yàlla mi nga xam ne daal dara tëwu ko te euh, lépp loo nga xamante ni daal wax nañ ko fi ci ay wax joo xam ne lu rafet la sunu borom nangul na ko ñun nag bon ci aar bi la nekk ci lu ñuy yëngu. daanaka it xam nañ ci lu bare bare bare bare bare ndax euh, loo xamante ni bi daanaka ba nga ci nekkee léegi daanaka fanweeri at ëpp na ko euh, xam nga ci lu bari xam naa ci tamit ku nekk dinaa si jëflante tamit qu'importe ñu ma si jëflanteel bari na ba biir Dakar ay mbuur bon foofu yëpp dama fay dem di jaay ji ay bisoog yooyu ba ci banlieue bi nii ragal naa ni marché sang tëgg yu bare bare bare bare bon ñoom xam na ma quoi xam na mu baax a baax a baax tey jii tey jii euh, wàllum bijoutier ci wàllum tëgg mu nekk loo xamante ni lu xaw a compliqué la ci métier boo xamante ni maanaam da nga cee jàng ba mokkal ko ubbi sa daara nekk ci nekk ci ak ay jeunes. tey jii ñu gis ni tey jii métier bi nga xamante ne mooy bijoutier compliqué na compliqué koo xamante ni war a essayer compliqué wu compliqué tax ñu naan. Mhm. waa xam nga àdduna moom lépp dara yomb lépp compliqué waaye lu ci nekk rek euh, amaan na sa jom. moo la ciy poussé ba nga dem ba am boobu oh, oh, nit dina gis mu jafe sax waaye yow mi ci nekk bon day mujj yomb ci yow waaw waaye ku ci néewul day gis affaire bi ak yu sew sewaan yi ñuy tiim ak ak bi mi difficile du mën a comprendre moom xam nga mais ñun ñi ci nekk nga xam ne dañu ci nàmbatal bon euh, du du nu jaaxal yenn jaaxal yi du nu jaaxal yenn jaaxal ndax ay mag ñoo nu jàngal tëgg ku ci mel ni euh, le grand bijoutier Ousmane Seck mi mi nga xamante ni daanaka romb nga ko sax mi nekk fii kër Ndiaga Touré gii ci étage bi noonu man daanaka foofu laa génne foofu laa génne ko bi mu jub sama daara waaw taal bi sëñ Cheikh Oumy tamit la àqan nag waaw ba ci Sam mi euh, Sam Seck ñoo bokk sëriñ ñoom as ñoom ñëpp wax dëgg yàlla xëy na nag man bi may jébbalu sëriñ bi sëriñ bi dam dañ moon moom liggéey jaam yàlla rek lay santaane moo tax man ma nekke waar wi nii waaye tëgg moom loolu waay mën a wax boo métier la moo nga xamante ne bii difficile na difficile waaw toujours tamit boo ci nekkee li nga yor lu mu ndaw ndaw même bu dee benn gramme na nga fexe muy lu lew fexe ba mu set wecc doo am sens bi ci njaay meeg yooyu parce que man damay dem bu biir plateau ay ay ay ay riz Carnot Amadou Assane Ndoye beeg ba ci pont bi fu nekk lay jaay ay bis te am na yenn certaines bis visiteurs yoo xamante ne bii boo yorul lu baax. amuloo autorisation pour di fa dugg yooyu quoi surtout ñu ci mel ni waa kër ñoom Sall ak ñang yi et cetera ba ci gars yi nekk tali bu mag bi ñoom ñëpp samay gaa yi naan ay ñoom buggee gars yi ñoom Fallou Seck et cetera bu ma limee daal xam naa ci ñu bare bare bare wax dëgg yàlla waaw. tey jii euh, maanaam mën nga ñoo xaymaa ci li nga xamante ne ban année nga dugg ci métier. Hmm, bon man nag euh, village Touba la Kajoor laa jógee euh, Kajoor laa jógee dëkk bu ñuy wax Mbër la Thiam voilà jógee en quatre vingt neuf événement naa 89 90 91 daal mën naa ci laa dugg ci kër waaw nekkoon ak sama benn grand bu ñu doon wax Maras Mbaye di jaay lalu wurus di jaay ay biis yooyu quoi waaw. ma bi ma fa jogee ci laa nekk ak sama grand Ousmane Seck mi ma lay wax nii quoi moom place laa gën a yàgg sax que ci mbaarum biis parce que daanaka place am def naa presque ay daanaka lu jógee fukki at ak yooyu waaw. tey ñu gis ni ci jàng métier bi. Euh, maanaam da gis léegi génération yi bees yi léegi dañuy def ay affaire de concurrence ak seen yenn grand yi te métier mu nekk métier boo xamante ni métier noble la muy métier bijoutier tey ji dañuy gis sax yenn woykat yi mag yi sax dañuy jël di tagg bijoutier yi waaw tey maanaam ñi nga xam ne tey ji maanaam dañ cee toll ngir war koo jàngi ngir war koo mën ngir ñu war leen a ñana ngir ñu war koo jariñu te nga xamante ni tey ji dañ jur seen doom tey ngir bëgg leen see taataanal seen i nangu ni carrément ni war nañ koo jàngi waaye duñ ko jàngi noonu la nga leen di conseil moom métier tëgg amour la woon bëgg-bëgg na woon léegi nag affaire bi dañ ko mujj xaw ma nu ñu koy waxee ci tubaab xaw ma commercialisé xaw ma question léegi daal boo xoolee ba am xaalis la bari na sax ñu ci ay Dubaay yooyu indi ay biisu te amaana genn wàll gi ay pël amaana genn wàll ay saroxu lëlëm léegi pour nga gis si ñeeñu durul sin sax bu ci nekk nii man di euh, nga xam ne kii ndayam ñeeño la bàyyam ñeeño set na wecc si ñeeño sax c'est un problème léegi dañ ni affaire bi léegi amal xaalis rek xam nga bon comme bii yi indi ci suuf fii fii fii suñu réew mi di ko imposé suñu jigéen ñi xam nga bon def na faay bu mag a mag a mag mag aussi ci tëgg def na ci affaire bu méttee méttee méttee parce que li ñu ni di proposé noo nekkul man ci mbaar mi laa ne man xam naa li ñu leen di proposé nekkul mais niiwal doole bon lañ ci jublu ku ne xam na ni or bi ñuy liggéey Dubaï ak or bi ñuy liggéey fii c'est jamais seulement opposé bokkuñu sax. bokkuñu. te tey man dama ci xam ay secret yoo nga xamante ni bii non ragal naa ne buñ ma woowoon ci média dëgg dëgg dëgg dëgg dinaa ci wax loo xamante ni bu muytu

ko ko demee sa bopp la xeeb sa bopp la amal tamit bon ñàkk a sa bopp tamit bokk na ci xam nga parce que lépp loo gis lu ne rek ci àdduna bon liggéey rek moo takk koo fi gis mu yëg ci avion ko dem ak ñëw tamit ci liggéey rek la nekkoon man du ma nangu ab tubaab wala am naar di ma proposé loo nga xamante bii man day yàq sama wàllu métier lu bare bare bare bare bare parce que ñun or bi fii lañ ko daan tëggee mu yomb jigéen ñi lool daanaka jamono jooju noonu boo amee six cinq mille cinq cent wala lu ci topp dangay ngay mën a am gramme or xoolal actuellement nii bu ñu demee ba gramme or daanaka presque di xaw a lu mat cinquante mille francs boo ci bëggee lu bari yow léegi yow nooy def malgré tout bari na si ay bus yoo xamante ni bi gars yi ñu ngi koy jaay te clients yi prêtuñ ci sax attention parce que la ñuy jaay dara baaxu ci man li ma lay wax ni fu leer nañ la ko teg bari na si ay borom bijouterie yoo xamante ni bi tey jii boo duggoon seen ci ci ci yi. lan ñu exposé nga jël ko contrôlé ko wallahi la si laa ilaha illallah bari na si loo xamante ni du jàpp da ko def du jàpp du waaw mais mais mais loolu daal ay ay ay ay ay millions lañ ciy def amaana sax bu ñëwoon ci ñang ah la ñuy jëndale la sax ah mën nañ koo am si ñang te terewul seen xaalis day def. loolu est-ce que nekkul ñàkk xam la parce que chaque jour ñu kaañoo leen ci mën nga dugg ci benn vitrine nii jënd fa valeur benn 2 millions léegi léegi léegi nii. nga tax ko même pas deux jours nga ñëwaat ci bijoutier bi di ko jaayaat wala lancé bu la fayee prix noo xoolal say rangoñ day wadd te moo la ko jaay même pas bërki démb parce que li ko gën a indi mooy gars yi dañuy voyage yi dañuy jóge Sénégal bi dem du Dubaï mais dañuy dagg billet d'avion bu nu demee Dubaï dañuy dal hôtel waaw bu nu dalee hôtel la temps ñu fay nekk ba jëflante naar yeeg yooyu ba ba ñuy ñëwaatee Sénégal dañuy fere waaw léegi li waral seeraayu or bi mooy maanaam ñoom dem nañ ba xam ne kat li ñu fere bari na léegi na ci or bi rek lañ ko mën a dab waaw léegi normalement bu or bi dee war a war a jar normal normal normal dix mille franc wala mu mën a jar normal quinze mille franc ah léegi ñoom ñu xëcc ko ba koy jaayee presque ay ay ay ay ay ay ay ay vingt neuf mille wala trente mille franc xoolal différence boobu parce que fere yi ñu fere yëpp fële yëpp ci biis bi lañ koy génne moo tax biis bi. di la dikk maanaam seeraay googu noonu est-ce que ñun amoon nañ benn association boo nga xamante ni bii ku ñuy wax Ibrahima Niang moo ko jiite woon doomu Alaaji Sall Niang mii la tamit mag pourtant ñun dañoo jënduloo ay carte ay carte ANBS man nii sama carte yi xamutuma sax mais dix mille francs ko jënd mboolem ko jënd ci carte yi sa dix mille francs tegu na ci taabal ji parce que boobu état bi moo nu ni ma ko déggee état bi moo nu waroon jox benn xaalis pour que ñu distribuer ko ci tëgg yi nga xamante ni dañoo xaw a faible. ñu wëlbatiku defar ay carte jaay ko gars yi dix mille francs bon yeneen yeneen mbuxum dugg xam nga parce que man dama ci mujjee dégg sax nee nañ séddale nañ benn somme ni daanaka mais genn wàll gi ñoo am genn wàll mais xam nga foofu noonu tamit benn day day faral day faral am maanaam ñi ñooñu yaakaar na loo xamante ni tey ji maanaam état bi tey bu ko naree def tey dafa war a gëstuwaat ci li nga xam parce boo xoolee loolu ña koy jiite en 100 pour nekkuñu bijoutier nekkuñu bijoutier léegi nag foofu noonu léegi dafa boobu noonu nga yaakaar ne tamit nekkul est que nekkul ci gars yi waaw ci gars la ci gars yi la parce que ñun am na am nañ kilifa muy ku ñuy wax Moussa Niang mu ngi tëlib mag ak Ibrahima Niang am nañ ñeneen ñu ci bokk ñu bare bare bare bare bare mais dafa am ñoo xamante bi ni ñu mën a def ba gis ministre bi man mi mënuma sama morom mënu ko keneen mënu ko keneen mënu te dafa am loo xamante bi bu demee ba am rek ah comme li ngay wax noonu ñun gëmuñu ñu quoi ñun ñu budget yi ne fii en même tamit état bi tamit joué na ci tamit loo xamante ni waru woon a mën a demee noonu parce que li nu am li nu am ci or muy jóge saba doolaa gi bon lu ne am na ci mafia bu ne tamit am na ci xam nga lu ne gis nañ ko ci mais man jàpp naa ne wurus woowu jógee ay saba doolaa waroon nañ ko mënoon a traité fii sunu réew ba mu normal ñu def ay comptoir yoo nga xamante ne bi état bi moo koy yor xool loxo yu sell yu wér est-ce mu teg ko ci ay loxom ku indi ay papier te man sa liggéey yi est-ce ñu dimbali la ci loolu pour nga mën a soutenir réew mi ndax liñ fiy liggéey kat ba ko jigéen ñi daan jënd benn problème daaw ñu ko ci am parce que ñun ba daan liggéey or pur la daan liggéey bu normal la normal la mais léegi or bi xew wallahi dafa tane plaqué rek. mais est que or la mais ñu bëri bëri. jigéen ñu bëri bëri bëri bëri. wallahi la ci laa ila boobu parce que nan gis muy melax nii rek di kiliñate mais. du ma ne nag ñëpp la am na si ñoo xamante ni bii lu baax a baax lan yor la ñuy jaay boo leen fekkee seen vitrine man ngaa ubbi vitrine bi la fa nekk yëpp mën nga koo génne yor sa acide contrôlé loo contrôlé day jàpp mais bari na si ñoo xamante ni bii tey jii boo duggoon seen place wurus woon exposé nga jël biis yi contrôlé ko wa leexi boobu lay dañ mbaar bu fekkee dëkk bi am na loi parce que li gën a indi lool mooy bari na ci ay capot yoo xamante ni bi fii dañuy dañuy yor seen xaalis di jënd wurus yi bi fi nekk di ko yóbbu Dubaï bu jëkkoon noonu la affaire bi daan demee buñ ko masaanu yóbbu ci naar yi naar yi buñ ko traité ba or bi war a mën a normal dëgg dëgg normal la nga ciy perte day metti su boobaa am na nu muy dem dem Dubaï yow risque la parce que li nga jënd fii boo ko yóbbuwaatee tubaab bi ban raxasaat ko ba xelli ko ba téye ko contrôlé ko bu doon un kilo bu ko tubaab bi traité boo moytu sa 500 grammes wala sa 400 grammes mën nga ko ceeb perte. léegi nag gars yi danoo dem ma dem a dem ba xàmmeetul nelawi gumba ak yeewoom looloo xew waaw dañuy jënd fii seen or est-ce que nga mbogom mbogom mu ne ñu dajale ko waaw lu ne ngi ci moom mi yor or bi sax xam na ni lii mu yor nii xam na ni jàppul. boo ko contrôlé du jàpp mais pour mu am bisu il faut moom mu yóbbu ko noonu du bàyyi naar yi ñoom seen yoon ne wuti boo ñëwee li nga leen jox rek loolu nga lay tëjal souvent ñu bëri bëri problème boobu loolu ma lay wax noonu loolu la ñuy def moo tax li nuy yor du normal moo tax li ñu yor du normal ñun dañ cee xam lu bare bare bare bare bare lu lu dul jeex man dama ko cee xam dégg nga léegi dañuy jël. seen xaalis bijouterie bu ñu dégg ci Sénégal bi ay Touba ak ay Louga ak ay Ndar ak ay Saint-Louis ak bon foo mën di wër ci euh, euh, Sénégal gi nii bari na fi ay ponkal yoo xamante ni bi seen xaalis la ko ñu miine ba lalu wurusu Kaolack seen xaalisam ay millions lañ fa miine pour buñ gisee luy jaay rek ñu jëndal leen buñ demee ba ñoom buñ demee ñoom ba am quantité bi ñu soxla alors jël vol bi dem Dubaï dem tëggul ko noonu jëlaat juge yi indiwaat exposé seen vitre yi. mbir yi daal jaxasoo na jaxasoo goo xamante ne daal boo laalee fii laal fële boo laalee fële laalaat fa des léegi est-ce que léegi est-ce que jotul léegi yéen ngeen def lancement. wax ak askanu sénégalais yi ngir ñu gën a yeewu ci wàllu mbir mi waxtaan ak tam beneen message boo xam ne tam da ngeen koy jël tamit lancer waat ko la état ngir ñu taxawul leen jàppale leen comme tey ji sànq yaa nga doon wax léegi nee nga jënd ngeen carte yoo xamante ni tey ji ba léegi carte ba nga jëndee dix francs ba léegi comprendre guloo parce que xamaguloo lan moo war a sax y'a rien y'a rien man carte ba sax dafa maa mujj réer te pourtant sama dix millions yu ni ma def ba am ko wallaay laxasim ni ma def ba am ko bu ma la ko waxoon sax da nga naan noonu parce man sama mbaar laa yor man seul yoruma empreinte yoruma dara parce que yoruma lu may fay ay empreinte ak yooyu le seul dama yor sama jabar yor samay doom di fay samay location fii dama koy fay bu weer deewee sama néeg dama koy fay bu weer deewee samay dépense encore te pourtant bu ma la nee li ma yor ci ab gal ah bu ma bu ma la waxee ni la li ma yor ci ab gal poids bi ma yor yëpp yëpp yëpp yëpp bu ma nee mat na deux cent grammes ah wala bu ma la ko waxee damay kàcc te pourtant mooy li ma déparé woon ak yow léegi nii rek. bari le barkeel le da koo gën trent trente cinq mille francs laay fay fii ci jumaay ay numaan jii fii juróomi junni laa fiy fay weer de dee waaw dépasse heure bu ma yewoo donte benn trois mille dinaa ko taqale jox ko sama soxna te man dong maa koy daw man dong maa koy daw xam mais ponkal yi ñoonu iñaanee ñun jàppale bëgguñu maanaam ñun ñu dem suñ maanaam ñun ñu dem ñoom nan ne ci kaw rek bu ñuy tudd ñoom la ñuy tudd bu ñuy waxal ñoom la ñuy waxal dégg waaw noonu la affaire bi demee mais biñ doon tëgg fii bagages yi fii la gënoon a yombe téeméeri junni yoon du question ne que nag ay jalousie wala yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen euh, euh, euh, moo tax may waxe non parce que man loolu mënuma ci dara waaw man loolu mënuma ci dara parce que suñu borom a li ma yurit moom la wax bal huwa qur'aanun majiidun fii max mahfuus waaw ñun ay ndongal daara lan danoo newoon te daara ja doon jàng xam mais am na loo xam daal boo man gis naa nit ku bëgg réewum bëgg réewum avancé non du ñu doxale nii nii ñuy doxale actuellement nii waaw nga ciy gis ñoo xamante ni bii li ñu yor ci ay bor kenn xamul lu mu toll ab oto la nii dañuy jara ñu dem fee ca parking ba leb benn oto xam nga dem Dubaay gars yi leb naar yi ñu ràng leen xam nga pourtant dañuy ràng dong mais xal yi lañ sax nga siy gis ko nga xamante ni bi la mu yor moom moo ko moom billaahi la si laa ilaahil amu ci lu niiw niiw niiw bu di tëgg yi nekk téeméer boo moytul boo si gisee ko xamante ni bi la yor moo ko moom bu matee cinq personnes wala dix personnes ki la yor ñeneen ñëpp dañ leen di ràng waaw mooy waral mafia bi di daw nga gis gars yi di rayanteeg lu ne kenn du yéene sa moroom jàmm waaw kenn du yéene sa morom dara ku nekk boo sañoon sa morom tey tey tey tey tey suba mara day daal waaw. yàlla ñu yàlla jàppale. xam naa ne am na loo xam ne daal lépp lépp daal xaju naa ci cin li quoi waaw daanaka dañ koy yabale foofu rek numéro téléphone baa ngoog ni ko gëm boppam la ni ko xam boppam lu bëggoon li muy def la ku ko soxla incha allahu rabbi nga bëgg oor bu baax wala nga bëgg jaaba xaalis bu baax baax incha allahu rabbi boo ko woowee dina la coordonné nga daal di moom bu ko defee xam nga li nga bëgg ci moom yàlla bu borom dogal ko mu defal la ko yàlla nañ yàlla defal jàmm mais balaa boobu léegi dañuy lépp moom xaju ci ci nit dinañ ko jaaree tam ci yeneen domaine ñu bàyyi la tamit waaw waaw xaw na ni ko olof di waxee daal waaye voilà macha allah da ngaa baax rek ndax bu la neexoon gàntal ba beneen yoon waaw dégg nga man mii sax wax dëgg yàlla sàmm dama koo gàntaloon xam nga parce que nit boo ko déplacé xam naa déplacement nit ki boo ko déplacé lu mu niiw niiw niw bon di nga ko bëgg a raayal ginnaaw finalement laa ko woon ne ko ah man kat am na lu may defar mais actuellement nii pareegul suba rek laa bëgg a dugg ci marché bi pour man koo jaay yooyu quoi. xam nga mun ma noo booy bi may envoyé nii sama booy la amul problème bu ñëwee waxtaan leen rek loolu moom. non non yéen yéen da a baax sax non yooyu sax garaawul ndax am na yoo xam mooy loolu mais balaa boobu tamit dañu nuyu ñi nga xamante ne saa su ne ñoom ñooy ci li nga xamante ni ci liggéey bi am na loo xam ne nag waaw waaw ma ci sori daal parce que tudd moom daanaka amul sens yéen ñëpp ñu ngi leen di sant ñu leen di gërëm papa léegi ñu bàyyi la léegi dernier kàddu yi boo ñu sant yàlla bu baax baax a a baax ñun daal euh, euh, ñeewuñu kenn waaw ndax li nu ne bon daanaka lu mat fanweeri at ak nii ñu ngi ciy suturawu xam nga taxawuñ tamit ci kenn di ko ko kii dara la reste nag bu xëy na bu ko suñu borom nammee ci ñun tamit bon dinañ dem tamit ba toll foofu quoi mais jigéen ñi daal man euh, war na man li ma ciy gën a foncé sax sur côté boobu jigéen ñi daal war na ni war na nii gën war na noo yeew war na noo yeew ndax xam naa dañuy nelaw jar na sax yow booy demee bay jëndati or sax jar na boo demee bay jëndati nga ànd ak sa donte da nga koy fay sax mu xoolal la yow leen lay jaay mu contrôler la ko sa kanam bu jàppee mun la jàppale bu jàppul mun la jàppul mais ñu ngi leen ciy bëgg a de waaw ñu ngi leen ciy bëgg a rey dafa mel dem leen a liggéey iñaana ngaa ñëw si ñang sax boo yoroon sa benn trente cinq mille franc ñëw ci ñang sax bu dee ba dee di nga ci mën a am sa benn lamu xaalis bu baax a baax a baax te du génn trente cinq mille yooyu waaye da ngay dem feneen ñu jaay la lamu xaalis boobu noonu cinquante mille wala ay soixante dix mille francs xam nga waaw da ngay wax waaw waaw. voilà kontaan nañ sant naa la gërëm naa la copain sant naa la gërëm naa la maa ngi lay déggee bu wér a wér a wér a wér di ñaan yàlla it euh, ëllëg yi si bi tamit nga dem ba raw ñoom El Hadj yi ay ñoom Bougane Gueye xam nga ñooñu ay nitu waa réew mi lan ñi ngi dimbali réew mi ñi ngi tamit wax dëgg yàlla di emploi yi tamit wax dëgg yàlla nit ñi euh, euh, euh, di liggéey quoi waaw loolu waaye mën a wax daal liggéey daal la takku liggéeyu takku waaw parce que leneen loo fi mën a gis rek liggéey xama xamal ni ay neen la quoi te jamono ji fi mu ne nii jaxasoo na jaxasoo goo xamante ni bii mais sàmmal sa diine rek sàmmal sa diine waaw sàmmal sa diine rek boo gëmee ni xul wallaahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad moo fi ne boo bari na si yoo xamante ni bii sax daanaka du la ko jaral parce que amuwaay yi nit ñi di amee fi mu ne nii bari na te bari na si loo xamante ni waroon nañ koo mën a feeñ ndax ni ni amee si mbir dafa bari dafa rapide xam nga même pas un an nga bëgg see nekk milliardaire wala même pas deux ans nga bëgg see nekk multi milliardaire loolu y a quelque chose am na lu xew am na lu xew am na lu xew. waaw ñun ay nanta lan waaw taal bi sëñ Seex Ummi lan waaw te ndongal daara lan waaw ndongal da xam xam nañ li ne ci réew xam nañ na ko xam nañ ko de xam nañ ko de waaw maa ngi sant di wax dëgg yàlla. waaw yéen a ko dégg loolu la tey ji li nga xamante ne tey moom la ñu indi indiloon fi nga xamante ni mooy diggante Pikine ak Guédiawaye ci biir élément nag lépp tey ki nga xamante ne tey fii fii nag moom mooy marché Pënd marché Pënd nag li may lancé tuuti mooy appel mooy état bi nañu gëstu marché bi baax a baax ndax ay ndaanaan ñoo fi nekk ay nit ñu gëm seen bopp ñoo fi nekk wàcc leen fi nag ngeen gëstu ñi nga xamante ne ñoo fi nekk rek gëm seen bopp yor seen i doole ngeen taxaw leen jàppal leen parce que loolu rek mooy moom mooy dernier yi du nuyu di sant ñëpp wasalaam ba ban sens. Bienvenue sur